nañu bàyyi xeexante bi ci suñ biir nañ ànd ensemble liggéey ñun ñëpp pour sunub dëkk parce que bu ñu xàjjaloo dañuy tuutil sunu dëkk bu ñu xàjjaloo dañuy dindi sun dooley dëkk liy fayda mooy bu ñu taxawee ndakaaru buñ jàkkaarloo ak gouvernement central ñu taxaw taxaw temm ne dañoo bëgg lu nekk pour Diourbel mais je l'ai fait tout à l'heure j'ai demandé l'université Mame Cheikh Ibra Fall pour Diourbel te awma ma ciy ragal mais loolu nag la moo yàgg moom la jurbel yàgg ñàkk jurbel dafa am ay nit ñoo xam ni dañ koy utiliser comme li allemand di wax Sprungbrett Sprungbrett mooy kuy kuy naage xam na ko kii boobu ñuy taxaw pied boobu kii plongé di taxaw da ciy taxaw rek ne cëpp tout plongé loolu da koy sànni pour mu gën a mën a plongé loolu ñu bëri dañ ko mas a def yàgg di def jurbel utiliser jurbel waayi ba am ndomb ak tànk après am complex sax fanaan jurbel man fii mu ne ci at mii li ma fi jóge dem Allemagne dikkaat moo ëpp li ma fi jóge dem Dakar pourquoi parce que dama fonk fii nee naa leen yàlla dimbale na ñu ñu amu ab autoroute bu ma nee cëpp aéroport de Dakar jël autoroute bi que jëm bi centre Dakar bootul maa koy njëkk sama kër njaareem donc pourquoi may xeeb fanaan si njaareem loolu nag lañ war a wax kuñ fi jox ndombal tànk ak ku mën a doon da ngaa war foo mën a taxaw ci Sénégal ak àdduna nga ne njaareem laa jóge dama bëgg njaareem changer positivement dama bëgg njaareem jëm kanam ku ko def man ngeen koo tàccu ku ko def man ngeen a ànd ak moom ku ko jëf man ngeen ko supporter parce que seen mbokkum Jurbelwaa la ku ko deful war ngeen a am fitu jàkkaarlook moom ne ko yow ku ñàkk fayda nga ku complexe nga ku xeeb sa bopp nga loolu nag buñ ko tàmbalee léegi ngeen gis Jurbel changé buñ ko tàmbalee doxal ko léegi ngeen gis Jurbel changé parce que du ko jóg rek yor oto bu rëy yor xaalis bu bari loo xam ni lépp yéen ko moom ça vient de l'État te état seenub xaalis la oto bu fi gaa yi dawal lum rëy rëy yéen a ko moom mbub mu fi gaa sol lum rëy rëy yéen a ko moom ah ndomba gu fi gaa yi takk lum ru ndomba li digg digg yéen a ko moom kon kooku man ngeen ne ko comme fii nga jëlee ndomba li del ñëw fii di taxaw fii di déglu sunuy soxla di ko wax ci boo demee assemblée di ko wax devant le président di ko wax ci àdduna si kon léegi dëkk bi changé loolu nag laa bëggoon a wone moo tax ma ñëw fii